dogir wuñ ci dagg raddu ko bu ëllëgee ñu dagaat waneen dogit raddu ko ba kero muy jeex ñi ngi jéglu nag kàddu gi daa mel dañu wax xawa soj xam naa kon ngir bañ a guddal ñu déglu lu tolloog juróom-benn minute jëm kaw ah, buñ noppee itam indi ci suñuy taxaw seetlu ci waxam joojee bu ëllëgee ñu defaat noonu ba kero muy eh, jeex ah, kon ànd dégloondoo dogir woowu fas yi wér ci wàllu yàlla lu tax mooy xam nañ ne su wéree lépp yomb gannaaw bi waaye su wérul dara du baax loolu mooy pas-pas bi nga xam ne lislaam moom la indi mooy jàngale borom bi tabaraka wa taala ñi xam ko xamin woo xam ne wu sell la ci niñ ko indee ci alquran ak sunna waaye bu fekkee xool nañ li jullit yi di dund tey danañ gis ne lu bari ci nit ñi yoon woowu yonente bi alayhi salaatu wasalaam xalloon saxaaba yi jaar ci ahlul xadiis jaar ci gannaaw saxaaba yi lu bari ci nit ñi jàdd nañ ko boo xoolee ci li gën a fés ci aaye alquran ak ci sunna muy sifaati borom bi tabaraka wa ay melokaanam tam doon bunt bu am solo ci bunti tawxid lu bari ci nit ñi jàdd nañ ko su borom bi tabaraka wa taala melalee boppam ci wenn melokaan ñu soppi melokaan woowu dem sax bay teg ay xawaayit ci xawaay di soppi nan la ñuy interpréter sifaat yi ba tuddi ko neneen nu bokkut ak li yàlla wax dem ba ku ñuy wax allaqaani ci téeréem bu siiw fii ñu koy wax jawharatu tawxid mu naan wa kullu nafsin awhama tashbiha aw wilhu aw fawwid warum tanziha bépp texte boo xam ne gis nga ko nee na mu naan la yàlla dafa mel nii wala dafa yor benn melokaan neena booba nang ko nang ko soppi ada interprété ko fiire ko neneen nu bokkut ak noona loo ci jublu mu ne ah xana sellal rek borom bi tabaraka wa taala noo koy sellale borom bi moo gën a xam boppam yonente biñ ko wàcce ñépp moo leen gën a dégg arab bu alquran wàcce wala sunna ñëw ne borom bi tabaraka wa taala yor na melokaan sangam yow nit nga ne ah lool kat su ma ne yàlla yor na ko kon maa ngi koy nuróoleeg bindee fii kon sellal googu ak soreele gi ma ko bëgg a soreeleeg bindee fii daa war a tax ma interpréter loolu tudde ko neneen nu bokkut ak li yàlla wax ci misaal yonente bi salallahu alayhi wa sallam day wax ne yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samaai dunia borom bi tabaraka wa taala guddi gu nekk dafay wàcc ba ci asamaan si gën a jege suuf si di wax ne kan moo may ñaan ma may ko kan momay laaj ma jox ko kan momay jéggalu ma jéggal ko ñu ñëw ci baatu yanzilu boobu dana wàcc ñi daal di jëfandikoo seeni xel ne ah lin xam ci wàcc kat mooy jóge ca place ba nga nekk man ñëw ci beneen ñu ne ah loolu daal jaaduwut ci xaq yàlla kon nuñ koy def ñu ne ah kon interpréter leen ko nuñ koy interpréter ñu ne kon dañ naan malaakam yàlla mooy wàcc waaw borom bi tabaraka wa taala su bëgg yonent bi akuk laa biiram ak yërmandeem ci xeet wi bañ ñu réer su fekkoon ne daa bëgg a wax ne malaakaay wàcc mënta wax ne yanzilu malaikatun min malaikati rabbina day ñëw di réeral xeet wi ne leen yanzilu rabbuna te fekk malaayika mooy wàcc ne leen yàlla mooy wàcc fekk malaaka mooy wàcc ma ne loolu réer yu mag la yoo xam ne ci buntu tawxidu sifaat li ëpp ci jullit yi tey ci bunt boobu ci lañ tàbbi muy mboolem kuréel yi nga xam ne dañ leen di tudde moo xam mu'tazila la wala jahmiya wala ashaira wala tur wu leen mën a jox taawil boobu muy interpréter sifaati borom bi tabaraka wa taala bépp woo ci xam ne seeni xel ñoom nanguwu ko ndax buñ ko xiyaasee ci nit gis ne nit moo mel noonu ñu ne kon yàlla wut loolu loolu mooy pas-pas bi ñuy dund tey kooku lan moo fi jaadu woon moo di ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kuy dégg arab moo la gën a dégg arab te it lim wax du lum sos waaye lu ko borom bi waxyu la alquran ak sunna lenn lu ci ne waxyu bu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala la kon bu ne borom bi tabaraka wa taala dana wàcc yow jullit bi gëmal ne dana wàcc mu des nag nan lay wàcce ci ban façon ak wàcciin wa ak bu wàccee fu muy nekk ngane ko loola sama yonne wu ci xaw ma ko ndax yàlla waxuma ko te gëm naa ne ut ak mbindeef dara kon ak wàccam ak wàccu mbindeef mënta bokk bu borom bi tabaraka wa taala saxalee ne moom dafa am li ñuy tudde loxo yadullahi fawqa aydihim yow julit bi saxalal ne am na loxo waaye bul ne daa nuroog loxo mbindeef ndax ni nga nangoo moom borom bi tabaraka wa taala am na jëmm te mbindeef yépp am jëmm ba noppi nga nangu ne jëmmam nu doo wut ak jëmmi mbindeef nangul ne ay melokaanam itam noonu la am na ay melokaan waaye melokaan yi nu doo wut ak yooyu mbindeef loolu moo gën nga dàq ko ne amu ko ànd ak ne mboolem ñiy taawil ñépp ñiy jëfandikoo interprétation boobu yépp dëppoo nañ ci ne borom bi tabaraka wa taala am na jëmm pourtant nit ñi fi ngeen jaar ba nangu loolu lu tax mun leen a nangu lële ndax ku ne amul jëmm rek moom kon dàq nga wujuudam maanaam da nga ne amut kon li nga ne amul jëmm da nga amut kon ñoom ñépp ba noppi nangu ne ni jëmmam lu roowut ak jëmmi mbindeef kon kay nangul ne am na loxo loxoom lu roowut dana wàcc ak wàccam lu roowut ak wàccu mbindeef wa kon bunt boobu ci baabu nga saxalal yàlla lim saxalal boppam ba noppi nangu ne nag nu róolewu ko ak mbindeef toujours danaa di wax mbokk yi ne leen bokk ay tur taxul bokk ay jëm bokk baatu bopp danaa ci di joxe misaal lu bare bari bopp boo waxee bopp nit am na bopp am xar am na bopp aw nag am bopp pusa sax am na bopp ay mbindeef la te yéen ñëpp ay mbindeef ngeen su fekkee wuute googu moo am ci diggante bindeef yi sunu borom tabaraka wa taala yi naka la nag diggante alxaaliq wal maxluuq diggante ki nga xam ne moo bi kooku bu saxalee boppam melokaanam nangul ne melokaan woowu sax la waaye nuróolewu ko ak kenn fa tabarakallah kon ñoo ko déggandoo kon soomam bi ku ko déglu da ci seetlu ay tuuma yoo xam ne mu ngi ko jëmale ci asaacira yi te saxut ay wax yoo xam ne da koy wax te boo ko déggee mën ngaa jàpp loo xam ne bokkut ak la am xam naa taxaw seetlu yi nga xam ne moom la ñuy waaj def dana ci gën a leer taxaw seetlu gi ñu ci njëkk seetlu nag mooy ni muy waxe ak ni muy bind boo ko déggee dangay day jéem a gëmloo nit ñi ne achaari bokkuñu ci ahlu sunna wala gaa yi biddaa lañ loolu moom ci boppam loolu mu def biddaa bu bon a la wax ne achaari yi biddaa lañ na xam nga achaari yi bu ñuy wax ahlu sunna ñoo ngi maturidi yi moom daanaka xel ñëpp xel yi ñi maandu tey waxe xam-xam ca ñoom lañ njëkk a dem ñoom ñii kay la ñuy li ba xam ndax ci ahlu sunna lañ bokk wala déet kon ku taxaw di wax say wax ba mel ni da nga leen boole ci ahlul bidaa kon yow loolee ngay def ci boppam biddaa la asalafu saalex ñu ñu respecté lañ woon ci asalafu saalex ñoom achaara yi ibnu xajar al asqalaani mi ngi nettali ne buxaari yi daana dimbandiku ci ñoom ci mutakallimoona yi boo demee ci tabyiinu kadibil muftari bu al imam ibnu asakir mi ngi nettali ne ibnu abi zayd al yi waxoon na benn waaye ne ko ibnu kilaab mi nga ne day nitug biddaa la nit li loo ko jenn wax joo xam ne manis na caa xamee ne nitug biddaa la te xamuñu kenn ku ko wax ne ibnu kullaab mi ngi ci biddaa wax ne lu ko li ñu xam ci moom daal mooy ku ràngowoon sunna la di tontu ñi nga xam ne ñooy gaay bi daay yi nga xam ne ñooy jaxmi yi ak ñu ñoom ci gaay bi daay nga kon asalafu saalih ibnu abi zayd yi ñoom ak ahlu sunna rafetlu la nga xam ne moom la achaira yi doon def te achaira yi itam mbokk ci ñoom waaye dañoo féete woon di tontu gaay yi nga xam ne ñooy yàq di wax waxi biddaa loola ñoom dañ ko doon rafetlu waaye bi ñu demee ba nga xamee ne nag gaay bi day juddu nañ ñu mel ni ñii fee ñii ñu jamonoon tel tey ak ña nga xam ne ñoo doon seen salaf ñoom ñoo daan faral di dal ci kaw asaari yi ñoom nag nekk gi nekk ci biddaa mooy waral ku nekk ci sunna doo mën a jubóog ñoom ndax dañoo bokkul luñ ne beneen taxaw seetlu bi ñu ci def itam mooy wane gi muy jéem a wane ne asaari yi dañoo wuuteeg asalafu saalex loolu di wax di wax jo xamne tegi wut fenn ben ki koy wax xamul wala bu xame nafiq la te ben wéyeku ci aqira bi nga xamne mom la asaacire yor moy aqira bi nga xamne mom la salafu salih yoron moy aqira bi nga xamne mom la sahabatu rasul yoron soppi wuñ ci al madhhab al ash'ari duru luñu sos waye luñu taxawal la ngir defandar dëgg gi nga xam ne moom la yonte bi jàngale woon saxaaba yi newoon ci ñi topp ci saxaaba yi itam newoon ci boo demee ci al aqidatu taxawiya al imam taxawiya mi ngi naan sun boroom wa taala an alxuduudi walgaayaati wal arkaani wal acdaai wal adawaati laa taxwiihi aljihaadu sittu ka saairi almubtadaat nga xam ne mboolem yi nga xam ne achaaciri bu ab texte jógee ci yàlla wala yonent bi ñu xamal nit ñi ne li muy nuru ci kaw kat ak lañ ca jublu bokkul daanaka texte bi tënk na ko ndax faww daal texte yi nga xam ne moom lañuy ta tawil mbir lay doon moo xam ne day wane ne yàllaa ngi ci bërëb mbaa day tuxu jëm fenn jëm feneen mbaa dafa yor ay cër yooyu li ñuy tudde mutashabihaat yi yooyu nag doonut a aqida boo xam ne ashaari dañ koo sos waaye aqida bu ñu dond la taxaw yi leeral na ko fii ci téeréem bi nga xam ne ma ngi cay nettali la nga xam ne Abu Xanifa te ñoom ak asalafu saalix ci lañu newoon mbirum ay limite ak ay cër ay jumtuwaay ak ay wet loola jomb na ci yàlla te achaira yi nag fu ñu amee jafe-jafe ak mubtadia yi nga xam ne ñooy wahabi yi ñi ñi leen jiitoon ci yu mel nii yii rek la aqida bi nga xam ne mooy aqidatu ahlu sunna wal jamaa ci salafan wa xalafan moom la ñuy défendre ñoom nag ginnaaw dañoo bëgg sax saxaat safaan bi ñu duñ mën a jubóog achair yi moo tax boo demee ci muidu niam subki mi ngi naa xanafi yi yi ak maliki yi ak ñi nga xam ne ñooy ña gën ca xanaabila yi ñooñ ñëpp ñu ngi ci euh, gis-gisiinu ahlu sunna wal ci yoonu cheikhu sunna abul xasan al ashari yi آه، سبكي كون باني سخ وبالجملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة وقد ختمنا كتابنا جمع الجوامع بعقيدة بعقيدة ذكرنا أن سلف الأمة عليها نانا تنكبر المموي aqi al aqidatu ashariya mooy aqida bi nga xam ne mooy aqidatu abu jaafar at-tahawi mooy bi ma doon liir ci ginnaaw aw dog yi du ci am solo la téere ab téere la nag moom dama caa loo xam ne daanaka tënk na aqidatul ashaira moo tax sukki wax ne loolee rek mooy aqida bi nga xam ne moom la ashaira yi ne te aqida boobee nga xam ne mooy bopp taxaaw yi borom xam yi nga xam ne ñoo nekk ci ngir yi nangu nañ ko gërëm nañ ko sun bi nga xam ne moom la ñuy tudde jamaal jawaami muy téere bu am solo nee na ña ngi ko mottalee aqida boo xam ne wane woon nañ foofee ne asalafu saalih ci aqidatu aqidatul yooyu lañu ne kon di wane rek ne kii nga xam ne da doon jéem wane ne asalafu saalih dañoo wuuteeg achaira yi la muy wax rek tigu ko fenn indiwul lenn yenn firnde yu koy waral firnde yi am yépp nga xam ne moom la ulama ul athar seere day wane ne ñoom lii ñu ne salaf mu salafu saalih waaye lañu ne woon lu dëppoog aqidatul ashaira la looloo tax bi mu agsee ci aqidatul laqaani te laqaani dafa tënk aqida bi nga xam ne moom la ahlu sunna masa yor ca salafu saalih ba fii ñuy waxee yow ginnaaw moom nekkut ca loola du mën a jubóo moom kon daanaka mooy taxaw seetlu bi nga xam ne mooy ñetteelu taxaw seetlu bi ci taxaw seetlu yi ñu doon wax mooy war gi mu jéem a wane ne laqaani yi lii mu ne bokkut ak li nga xam ne moom la ahlu sunna wal jamaa ne dem ba sax daanaka dañoo teg lu mel xel di ko ab boo xam ne dañ koy weddee lu ci alxuraan ak te loola demewut noonu danañ ci ñëwaat ci kanam pour wane ne moom moo yor ay dégginam seenu ñàkk dégg arab ak seenu ñàkk xam-xam moo tax ñu defee ne texte yooyee loolee ñu foog lay tegtale waaye yooyu texte daa tegtaliwul loolee laqaan yi loolu mu wax ne wa kullu nassin أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها loolu ahlu sunna ci lañ masane buñ ca nekkutoon taxaaw yi du wax leem wax ca ginnaaw moom mi nga xam ne moo doon enregistré ci téere maqiidatu salafu saalax adawaat yeeg aada yooyu yëpp nu suus yi ko yor ñooy yi nga xam ne ñooy defeeloo nit ne yàlla daanu roog nit yooye képp a ko tax a jóg leneen taxu koo jóg yeneen texte yi nga xam ne bokkut ci mutashabihaat yi yooye taxul laqaan yi di wax lii mu wax itam ulamaul athar loola la seere moo tax boo demee ci tabaqaatu shafiiya سبكي منا اعلم ان ابا الحسن لم يبدع رايا ولم ينشئ مذهبا وانما هو مقرب مقرر لمذاهب السلف مناضل عما كان عليه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابو الحسن سوسوت ام غير دونا كو خات سي غيناو دفنا جيرو نيوات لا صحابه نيكون ريك لولا لا تخول اي لي غير من كو ار سي كانم غاي غا خامنا نيوي غاي بداي تاي اندي لا يو خامني من فدنا نيت moo tax mu ne wa aqaama alxijaja wal barahina aley euh, loolu laqaan yi wax itam boo demee ci charxu saxiix muslim moom ngay fekk al imaamu nawawi wax moom aalim affaire bu mag la ñaari ñaari ñaari ngir yee muy benn tawil wala nga tafwid tawil nag mooy nga xool siyaaqul la siyaaqul kalaam maanaam wax ji euh, nan la texte bi ñëwee fii nga xool la muy teg tegtale foofa ci maanaam moo xam ne yell na ci suñ borom nga jox ko maanaam moomee tafwid nag mooy maandu ca tafwid nag am na ñaari façon comme ni ko Yaafi yi waxee ci téereem bi am na tafwid boo xam ne waa ji moom day nangu ne sifal ni ki yadu yadullaahi wala qadamullaahi wala yu mel noonu xam ne moom da koy boole ci sifaatullaahi doonte saxal na ne nag moom xamul maanaam yi waaye moom day wane ne lu sax la wane ne itam ci sifaatullaahi la bokk waaye nag moom xamul maanaam yi am na am na koo xam ne nag moom ci mu fawwida yi la bokk waaye kooka moom du ko sax du ko boole ci sifaatullaahi yi day nangu nag ne moom la yàlla lay wax moom dëgg la moom moo xamul lu waaye du tax mu lim loolee ci sifaat yi waaye lu mu a doon rek ku mu ci mën a doon mooy ki nga xam ne jëmmi baat bi da koy boole ci sifaat yi doonte moom saxal na ne xamul maanaam yi ak ki nga xam ne moom jëmmi baat bi dana xam ne lu son boroom wax dëgg la waaye xamul maanaam waaye nag du tax mu limaale ko ci sifaat yi ndax amul ci ay preuve yu wane ni ci la bokk comme ci mën a doon rek mu xawwil nga mu awil nag moom jëmmi baat boobee day seet lu mën a tekk ci luxa te du yóbbu yàlla ci wutal ko ay cër mbaa ay béréb mu tekkee ko loolu te booleeg loo maanaam moomee muy wax mu am ay xarina yu wane ne maanaam mu wér la ndax moom itam dafa am ay sart ta'wil kenn sañu te wax rek ne lii de te amoo ci ay adil yu leer kon lii ma wax rek wane na ne waa ji li doon wax naa gaa yi seenum xel dong lañuy teg ne nangam loola amut mënu caa indi ay firnde doonte am xel moom kenn du ko dàq nag ci mbirum istidlaal ci wàllu yu mel nii dinañ ci ñëwaat léegi sax ci kanam waaye nag faw mu am luy wane ne loola euh, jubluwuñ ca la muy nuru ca kaw nit ki nag mën naa jaar ci xel ba xam loola loola moom lu mën a ne euh, te loolu moom defe naa bu xooloon ay sëriñam sax dana xam ne mucc ñu ci euh, ab texte ñu seenum xel wan leen ne jubluwuñ ci lii lee lañ ci jublu loolu naaw yu wax itam ne ta'wil ak tafwid ñaari ngir la yoo xam ne ahlu sunna ca lañ woon salafan wa xalafan du moom doo nga ko wax ulamaul athar moom lañu wax bu la neexee nga dem ci al qurtubi ca téeram bi ñuy wax tazkar te téere boobu mi ngi ko taalif ginnaaw bu noppee ci tafsiram bi ak ginnaaw bu noppee ci téeram boobu ñuy wax asna même ibnu abdul barri mi nga xam ne sax gars yi moom nañ ne mooy seenub làqatukaay buñ demoon danañ gis muy askan malik ak tawilu nuzul te booleeg di wane ne loolee mu wax mën naa ne boole ma ci tamxiit ci xaaju juróom ñaareel bi page 140 3 kon muy ibnul jawzi muy suyuti comme boo demoon ci téere mi ñu wax al muy bay haqi muy ibnu hajar al asqalani muy daanaka mën nga ne sax muy ibnu asakir muy mboolem ulama ul athar ba ulama ul hadith daanaka ku ci wax ci salafu saalix rek danga xam ne la ñu lay tënk ba moom mooy ñu ñu bari ci ñoom tafwid lañ gënoon a def waaye nag danañ saxalit ne am na ci ñoo xam ne tawil nañ ci misaal rek boo yemoon ci Fatahul Baari Ibnu Hajar dana am na ci ñoo xam ne dañuy tafwid am na ci xam ne dañuy tawil te loolu sax nee na askan nañ ko ci Malik Ibnu Anas mi nga xam ne mooy suñu imaam loolu dama ko wax wax yoonu euh, gàttal rek waaye ma ne san na koo gën a guddal waaye xëy na son bi la ñuy wëñ ba àgg fenn fi kenn ku nekk mënoon nañoo liir say texte di ko wax ba même boo woon rek ci ay ni ci umratul kaari leeral na ko euh, kon ñaari ngir yooyu ngir yu siiw lañ ci ahlu sunna muy tawil ak tafwid ñaari ngir yi nag wahaab yi yii moom nekkuñu ci benn nekkuñu ci tawil nekkuñu ci tafwid ci asifaatul mutashabiha loolu nag moo waral coow li bari ndax dañoo nekkut ci sunna boo newut ci sunna nit nekk ci sunna faaw sa coow bari ndax da ngay jéem woon ñin ñi ne la nga nekk wér na kon taxaw seetlu ñeenteel bi mooy wax gi mu wax ne ahlul hadis nekkuñu ci li nga xam ne moom la ashaire ne li may njëkk laaj mooy ñan ñooy ahlul hadis dëgg la boo demee ci téere yi da nga am ñu ñu tudd ahlul hadis waaye ñooñu nag taxu ñoom wahabi yi taxut gaa yi wax ñooñu ay nit lañ yoo xam ne tawil sax bariwut ci ñoom waaye nag tafwid a bari ci ñoom te bu ci ne nag nun nangu nañ ko nangu nañ tafwid nangu nañ tawil ah, ahlul xadis googu itam bari na ci ñoo xam ne dañuy tawil boo demee ci ibnu abdul barri ci tamhid ah, wax na ko nee na qaala qawmun min ahli l athari aydan innahu yanzilu amrahu wa tanzilu rahmatuhu maanaam xadisu nuzul nee na ñu bari ci gaa yi xadis yi nee ci jublu mooy du jëmmi wàlla yàlla ji mooy wàcc waaye mbirum yàlla mooy wàcc ak yërmandeem innahu yanzilu amruhu wa tanzilu loolu nag lu bari ci waxiini arab la gaa yi nag seenu ñàkk dégg arab day tax bu ku dégg arab waxee loo xam ne noonee la ko saxaaba yi dégg woon ndax saxaaba yi mu ajuwuñu woon ñu leen koy leeral ndax ay arab lañ demee ba nga xam ne gaa yi biddaa yi fës di ko dégg dégg ni yi moo tax ahlu leen ni leen lii ngeen foog ni moom lay tekki kat bokkute la muy tekki dëgg dëgg dëgg dëgg ndax jamonoy saxaaba yi moom soxlawuñu woon loolu donte yéen nag tawil amoon na ci ibnu abbas doon na tawil ak ñeneen même sax ñu topp ñoom mujahid da ngay gis muy tawil wacc ak eh, ahmad da ngay gis muy tawil majiullahi ñu bari da ngay gis rek nadr ibnu shamil da ngay gis muy tawil manis naa lim ñu bari ci ñoom ñu tawil waaye li tax mu gën a bari ci ñi ñëw seen ginnaaw te seeni jamono bari wutoon noonu jamono jooju ay arab lañ yu kenn rëxul yoo xam ne yu dégg arab lañ boo ne yàlla day wàcc duñ ci dégg jëmmi wàlla ji yuy jóge ci kaw di wàcc ci suuf ndax xam nañ seen pas-pas leer na xam nañ tamit ne wàcc arab dana dana wax ne kilifa def na nangam wala nangam def na nangam du fekk jublu ci jëmmam ji ci moo ko def loolu loolu dañ koo xamoon moo tax soxlawuñu woon loolu soxlawuñu woon genn yaatal gi waaye ginnaaw ñoom ñii ne ñëw nañ te dégguñu arab defe ne mën nañoo jàngal borom xam yi Eh, langue arab bi nga xam ne ñu bari ñoom moom lañu nàmp booleeg ñoom ñi mën nañ leen jàngal ay at jamono jooju la borom xam yi gën a leeral ta'wil ndax buñ ko deful musiba am ndax dañuy jàpp yàlla lu bokk rek nam demee ci ay textes yoo xam ne mutasaabiha shaabihaat lañ yoo xam ne maanaam dëgg dëgg dëgg gone gu mel ni ñii mënuñu koo xam loolu moo indi woon mbirum ta'wil waaye ahlul xadis moom ñooñu muy wax sax bari na ci ñoo xam ne comme ni ko ibnu abdul bari waxee ci tamhid euh, dañuy dañuy tawil euh, seen ngir mii nga xam ne nag moom la ñuy wax ni moo wér mënuñu laa wax benn imaamu salafi bu ko mës a fas bu ñëwee ci lenn ci ñi nga xam ne ci asalafu saalih lañ bokk mu jëloon ko mel ni Ahmad ibnu boo demee ci aqira boo demee تأويل ramu tawil bi nga xam ne moom la ibnu qudaama taalif da ngay gis ci وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن الله يرى وأن الله يضع قدمه وما أشبهه fa qaala abu abdillahi numinu biha wa nusaddiqu biha wala kayfa wala maana nee sol nañ ko ne ko xanbal laaj na ahmad ibnu anbal xanbal xaddis nga xam ne mooy ñëw ñu naa yàlla day wàcc guddi gu ne bokk na ci yi nga xam ne moom la sunu waa doon wax waxtaane tey wala day yàlla day teg ndëggoom ci sawara wala yooyu nee na Ahmad ne ko dañ koy gëm dañ koy dëggal tamit waaye nag naka la la muy tekki nag loola moom duus ca dugg loola amu ko nga gis ne kon kii tax tafwid la kayfiya bi nga xam ne gaa yi gaa dañ koo saxal da koo dàq maanaam bi nga xam ne gaa yi nee nañ ala zahiril luxa la Ahmad da koo dàq nga xam teg textu Ahmad bii دان نغير وهابي من من الالف الى الياء ولا كيف ولا معنى ني نك دانيي واخني كيفيه بي موم مجهوله وايي نك معنى بي دانيي واخني معلوم تبول الله معنى معنى يد الله كين دولا جي تونت كين كو خامني من نغاكو لاج لوخو يالا لان لا مونيل لي لا امول تا لوخو تي عرب دا فا ام نيار فكي معنى جروم am na léeg-léeg mu nekk ci maanaam cër mën naa nekk jumtukaay mën naa nekk leneen mën a nekk xéewal mën a nekk kàttan mën naa nekk leneen bu dee ci arab waaye yedullaahi bi nga xam ne nee nañ moom la yàlla yor boo leen ko laaj fii ba suba dañ lay wër-wër lu waaye duñ ne la lii la loolu di wane ne kon ñoom lañu ñoo ñoom mbokk lañ sax ci taxawu am na benn jour ma ci niqaasu ci waxe bi ay naar man leen ahlan fii saaxati taxawu ndax. mel na ni yedullaahi bi ngeen ne moom ngeen gëm mun leen a xamu leen maanaam yi te loolu rek mooy taxawit buñ demee tamit ci alfiqahul akbar da nga gis ne qurbullahi jege yàlla abu xanifa te da ko tawil nee na walaysa qurbullahi taala wala buduhu min tariqi tuuli almasaafati wa qisariha walakin ala macna alkaramati walhawaan nee na boo déggee yàlla day jege wala day sori du cee gën ab distance a ñuy wax waaye li muy tekki mooy teraanga xam nga bu dee ci wax yoonu mbindeef yi bu nekk kilifa jege na ko mën naa tekki leneen lu bokkut ak da koo jege jege jëm loolu tam bu dee ci wàllu yàlla am na borom xam yu dégg lu xaw mel noonu teral gu yàlla teral nit wala yooyu tashrif wala yu mel noonu nga gis ne kon kii xurb moom tegu ko ci ala zahirul luxa bi nga xam ne moom la suñu gars yi wax naa xaribun bi yi comme niñ ko bindee ci seen téere daanaka ci gàttal saa yoo boo xam ne ci asalafu saalex la bàyyi ko dana bir ne ñii lañu nekk ak la salaf nekk nuroowut sax mu mën a bokk waaye nuroo def ko yeedullaahi ak salaf saalih dañuy wax wax gu leer ne du ab cër waaye dama ci fiqhul akbar bu abu xanifata abu xanifata nee na yeedullaahi fawqa aydi xalqihi wa laysat jaarixatan lay wa laysat jaarixa loxoom yàlla du ab cër kon ñoom teguñu ko ci ala xaqiqati luga ndax kii wax ne yàlla loxo dëgg-dëgg la yor doo xam ne du ab cër ndax loxo dëgg-dëgg moom euh, boo ko waxee ab cër la ñi ñii njëkk xalaat kon kooku benn saxal na ko euh, ndax yàlla moo moo wax ne am na bi yëdd waaye nag maanaam dëgg-dëgg moom xuus ca bu fekkee am na meneen maanaam moom xam itam du du du du du moom comme ni ko sunu gaay yi di waxe mu ne itam mbirum nekk yàlla béréb ak yooyu itam yàlla nekk ci bërëb ak yu mel noonu itam bañ ko ko laajee dane law qiila ayna allaha taala fa qaala yuqaalu lahu kaana allahu taala wala makaan bu nit ne ana yàlla nga ne ko yàlla nekk na te lii lépp mi ngi ci fiqhul akbar bi nga xam ne ñoom ñu bari seen yi reconnaître nañ Abu Hanifa daa ko taalif lii nag dama ko indi ngir wane ne ngir leeral rek sore goo xam ne sori nañ ko salaf gi nga xam ne ñoom la ñuy tuddoo ci wàllu pas bu yi buñ delloo tamit ci ictiqaadu tamimi bi nga xam ne moom la Ahmad moom la tamimi wax ne moo dëppoo pas-pas ahmad ibnu hanbal nga xam ne boo demee sax fa téere bay jeexe am na fu muy wax naa lu ñu wax lu lii loola du dëgg lii mooy li nga xam ne mooy wér ne ci la ahmad newoon euh, ahmad wax na ne euh, mbirum ab largeur ak longueur muy tool ak ard ak talaayag composé composé wu aw melokaan ak yooyu yooyu yàlla génn na ci mbir yooyu maanaam yooyu doonut yoo xam ne mën nañu am ci sun yàlla ci ci yàlla isma ala kulli وضعوا هذا wa على wa ذي wa وعرض wa وتركيب wa وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك آه. كن fii gaa yi dañuy faral di wax ne gaa yi dañoo jël seenum xel waaye jëluñu ay texte dama leen di laaj Ahmad ibnu Hanbal moom kon ndax am na benn texte bi wane ne yii mu wax nii nga xam ne da ko wax gu leer ne yooyu amut ci yàlla lii ne dama koy wax rek ngir wane ne am xel yàllaa ko may doomu aadama da ci am loo xam ne am xel mën naa xam donte sax nag asaari yi sukkandikuñ ci xel xel yu ànd ak ay texte lañ yor fu ñu la waxee xel rek dañ lay wax al adilla laqliya waaye itam dañu indi li gën a bari al adilla naqliya waaye am xel buñ nee euh, yàlla du lekk ndax moom wax na fenn ci alquran ne du ma lekk buñ nee yàlla du tàyyeel ndax wax na fenn ci alquran ne euh, man du ma waaye boo boolee al adilla al aqliya ak al naqliya daañ la wan ne la yooyu yu jomb ci yàlla lañ ndax ay naqaais lañ buñ ne yàlla wopp na wala day fàtte wala nangam fi saasa donte am na texte yoo xam ne ñëw na ci alxuraan nasullah fa nasiyahum wala marida wala yooyu da ngay xam ne jubluwuñ ci loolu donte amul amoo woon sax benn preuve bi wane ne loola amul da ngay di xam ne loola moom duul ko Euh, ñi nga xam ne ñooy tawil te weesuwuñ loolu dañu am ay addila yu wane ne texte bii lii muy nuru ci kaw doonu ko weesuwut foofu boo demee ci fi muy waxee yadullaahi da ngay xam ne yadullaahi bi nga xam ne moom la ahmad sox saxal ak bi waxee bi wax du benn ndax nee na ñaari loxo yàlla lay sataa bi jaari xatay ni wala lay sataa bi murakkabatay ni wala jismin ولا جنس من ولا جنس من الأجسام ولا من جنس المحدود والتركيب والأبعاض والجوارح loxo bi yàlla bi muy saxal moom duurut boo xam daa composé wu duurut ab cër du aw yaram duurut lu ñu limité duurut lu composé wu duurut loo xam ne da nga naan lenn li lenn laa ngi ni lenn laa nga ne li kon kon du al yad al xaqiqiya bi nga xam ne moom la waxaabi yi wax muy ala zahiril luga boobu moom ko doonu ko ah, lii rek di wane ne ñoom dañoo jëm sow salaf saalix boo demee ci aqidatu ahmad bu tamimi tamit boo demee ci al istiwaawu loola rek nga fay seetlu naala wanne la waxut mbirum bi rëb mbirum wo mbir wax waxu mbirum jëm yàlla ju laalanteeg aras wala ju dajeeg moom wala yàlla sob ko na melan abaa aras yooyu yëpp da koy daan dàq nga xam ne kon moom li muy wax ak li ñuy wax yàlla ak yéel yi waaye ngir réeral nit ñi ak nax nit ñi dañu jég-jég tudd kilifa gu mag daan ne wax ne leen wax wala noo dëppoog ñoom taxaw seetlu juróomeel gi mooy waa ji daa fekk ñi nga xam ne ñooy mushabbiha yi nga xam ne ñooy nuróole yàlla ak mbindéef yi mu leen di tuddee ahlu sunna boo demee ci Fatxul Baari yi wàllu nuzul googu Ahmad doon wax bi ci Ibnu Xajar Xajar al Asqalaani ak seedane qawluhu yanzilu rabbuna ila samaai dunia bi mu ko waxee ba noppi dane وقد اختلف في معنى النزول على أقوال فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته <coughs> لأن فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة لأن أمنت نوحنا دنيوحنا دنيوحنا وهابي وخ موي موي النزول على على ظاهر اللغة وحقيقتها ابن حجر نعنى نينا مشبهي ñooñu ñi nga xam ne لكم من yàlla ñooñu moom ci gaa yi bi daay lañ bokk booy demee tamit ci bi ci ayatul istiwa ci suratul baqara bi bi mu indee aaya ba noppi dane wa hadihi al ayatu min al wa après mu ne nga xam ne ñoo ne ala zahirihi nga xam ne aaya bi nee nañ ci ni saayir si mel ni la mel istiwa nee ñooy mushabbiha yi kon moom ñi muy wax ahlu sunna bu dee waa ahlu sunna ñoom mushabbiha lañ leen di waaye ñoo ñi xam ne dañoo fekk bindeef ñu nuroo lekkoog yàlla waxuma nag di leen boole ci ahlu sunna waaye ci gaay bi daay sax lañ bokk mooy loo mooy li ma doon wax ci ginnaaw rek boo nekkee ci biddaa doo mën a jubóog waa ahlu sunna faaw nga xas leen faaw nga sosal leen faaw nga waxal leen loo xam ne waxuñu ko waaye nag bu soobee yàlla lépp luñ ci dégg noonu danañ ko wekk buñ koy wekk itam duñ wax na mu waxee moom mooy wax yoo xam ne dangay wax di dem rek waaye li nga wax doo ko doo ko layal sam xel ngay tararare yi dem rek te doo ci indi ay preuve euh, la xam ne ibnu xajar nettalil na ko ku ci mel ne awsaa yi ñoom muy asalafu saalax boo demee ci bërëb bii may wax ak euh, ñeenti borom ngir yi euh, te mooy abu xanifata ak malik ak shafii ak ahmad du lu mel nii nga ne ci saayiram la ne comme ni ko waxaabi yi ne waxee te lii Ibnu Xajar di wax nag romboon naa ko ci ginnaaw du moom doo koy wax boo demee ci ulamaul athar ku ci ne ku ci wax rek te tudd asalafu saalih da xam ne lañu nekkoon ak lii waxaabi yi nekk bokkut ñu nekkoon ñun ñi ñoo ca ne waaye ñoom nekkuñu ci taxaw seetlu juróom-ñeenteel bi mooy tuumaal gi mu tuumaal nit ñi ne ñi nga xam ne nee nañ yàlla du jëmmam ji mooy wàcc waaye malaaka mooy wàcc nee na dañ ko teg ci seenum xel maanaam dañ daal jëmm yàlla wàcc moom mooy jëmm yàlla jóge ci kaw ñëw ci suuf ñu ne loola mënta ne loolu nag sos bu mag a mag la moom ndax ñi ma gis ci borom xaw yi ñi koy wax loola waxuñu ko ñooña dañoo wax ne mën nañoo wax ne yàlla def na nangam fekk du jëmmam jëm moo koy def waaye da koy deflu bu dee wàccu malaaka gis sax nag moom ab xadis lañ sukkandikoo dinaa ko tudd léegi waaye am na ci yoo xam ne lu mel ni woote yàlla yooyu dañ ci faral di lu mel noonu xortu bi boo nee na loolu wuute wut ak làngu arab xëy na ahmad loolu ñoom ñi dañoo déggul arab xamuñu itam ni naar yi waxee te noppiwuñ mooy leen yóbbee wax ju bari nee na ba mathalu ومثل ذلك ومثل ومثل ذلك سائغ في الكلام غير غير مستنكر ومثل ذلك سائغ في الكلام غير مستنكر أن يقول القائل نال الأمير وبلغني نداء الأمير كما قال تعالى ونادى فرعون في قومه وإنما المراد نال المنادي عن أمره لول من أمله من اسنا وخني Eh, buur bi woote na wala buur woote buur bi agsi na ci man fekk du jëmmi buur bi nga dégg kàddoom waaye ndawam nga dégg kàddaw comme ni yàlla waxee ci alquran na ku ko wooteel moom dong moo taxaw di wër mbedd yi naa ne Qurtubi nee na ka qawlihim aydan qatala amiru fulaanan wa daraba fulaana nee mi ngi mel rek ñi nit ñi waxee na buur bi rey na sàngam rey na diw wala dóor na diw du buur ba moo jël yadoo di ko dóor ba moo jël jës ji di cor fi ne fii ci Sénégal rek dañuy wax Macky Sall tëj na Karim Wade waaye kon ne xam na ne doon jàpp di tëj ak di fiyeefu nag moom mën naa am ab policier la wala muy ji waaye du jëm jëmmi Macky moo deman euh, kon liñ bëgg a wax rek moom moo ci ndigalam lees koy defee euh, te du caagéen sax ci luxa dong li ñuy sukkandiku waaye dañuy sukkandiku sax ci inte gisoo boo xoolee xut bi nee na waqad warada fi saxiix al ahadis yi an al malaikata yunaadoona ala ruus al ashhad nga gis ne kon xadis yi rod di wane ne malaaka yi dañuy woote xurt bi mu ngi koy indi ginnaaw bu mu waxee lool nag la ñu ñëw ci li nga xam ne moom leen ahmad tuumaal ne dañoo wax ne yàlla mënta jóge ci kaw di wàcc ci suuf te doon doonte loolu yi nag lu jomb la Euh, waaye fii moom dañoo sukkandikoo sax ab asar qurtubi nee na wa mithluhu ma jaa fi xadiisi tanazuli mufassaran fi ma axrajahu عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا يقول هل من داع يستجاب له hal min mustaghfirin yughfaru lah hal min saailin yu'ta saxaxahu abu muhammad abdul haq xam nga da ci xadis xadis yi wax ne yàlla day wàcc da ci am yoo xam ne day ñëw ne yanzilullah wala mu wax lu mel noonu waaye rek comme ni ko iraqi waxoon ci alfiya ba noona wa xayru ma fa wa xayru ma fassartuhu bil waaridi xadis leen li day firi leen li am na ci xadis yoo xam ne daa ñëw leeral ne lay wàcc kat malaaka la yooyu nag ñuy wax ne malaaka ya wàcc ci la ñuy sukkandiku moom la xurtu bi def fii moo tax mu ne li ñëw mu fassiran am na ci xadisu tanazul boo xam daa ñëw di ko di firi loolu naam sax bu yemoon ci yàlla day wàcc rek dëqonte wut ak malaaka wàcc comme niñ ko waxee woon léegi ci ginnaaw yu mel noonu dafa am ci làng tamit boo déggut arab nag dalay lay waaye xadis bi sax beneen xadis da koo firi kon fii moom tarjeex ak yooyu amu fi place xadis bi beneen xadis moo ñëw firi ko moom la Qurtubi wax tamit waxut la neen moo ne yàlla day bàyyi bàyyi ba xaaju guddi bu njëkk bi dem mu digal luy woote loola di woote kon xadis boobu firi na bële boo demee ci tafsirul Qurtubi tamit nee na waxad ixtulifa fi tawilihi wa awla ma qiila fihi ma jaa fi kitaabi nisaa yi mufassir انصارا عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لها ويل من وقت جناه وخان نكو جي وخان نكو جي تذكر واي وخان نكو جي فتفسير مسخ تامت موم قرطبي كون تا حديث لا بو خاني بروم خم بو حديث بو مك موي ابو محمد عبد الحق ويرل لنا حديث بوبو حديث بوبو سي بوبو سي نسائي ويرل نكو موي حديث بو ليرال ني lay wàcc di woote loola du jëm yàlla ji waaye malaaka mu yàlla yabal la kon looloo tax qurtubi ci tafsiram bi mu ne wa huwa yarfaul yarfaul ishkaal wa yuwaddaxu kulla ihtimaal loolu mu wax ju leer la joo xam ne amatut lu ñuy laam-laamee wa yuwaddaxu kul wa anna al awwala min baabi xadfi xadfi almudaafi an yanzilu malaku an yanzilu malaku rabbina fa yaquul kon xadis bi nga xam ne moo naan yanzilullaahu kon dañoo dagg mu daaf rek waaye tekkiwul ne jëmm yàlla ja mooy wàcc kon noonu arab da koy waxe waraf sax da koy waxe day noonu waxuma la arab kon boobu xadis ñëwee leeral mbir ma loolu iskaal amatul foofa kon bu ne gaa yi dañoo jékki wax lee te amuñuy dalil loola du wax ju wér wax la joo xam ne boo delloo ci texte gaa yi loola day day tuxu loolu Abubakar ibnu Fawrak boo demee ci Fatxul Baari ibnu Hajar tuxal na euh, beneen riwaaya boo xam ne yunzalu maanaam ma ne am malaaka la ñuy wàcce waaye boobu beneen riwaaya la buy tegtalee itam buy gën a dëgëralee buy gën a dëgëralee xurtu buy wax nga xam ne riwaaya la beneen boo xam ne yunzalu. ci xam ne sax yunzalu la ñëwee waaye ñëwul yanzilu nga xam ne dees na wàcce la kon mu mel ni kon am na lu ñuy wàcce loola kon boo ko boolee xaddis bi ak yeneen addil la day daal di dëgëral lee xurtu bi ñoom di wax kon euh, doonul rek ne gaa yi dañoo tëb wax ko noonu te amuñuy dalil tawil nag doon naa ko wax ci ginnaaw boo gisee mu gën a bari ci salaf doonte sal ci xalaf ci ñi nga xam ne ñoo ñëw ginnaaw salaf saalex euh, jamono yee bokkut boo demee ci xaar yi ci mirqaatul mafatix euh, mi ngi koy leeral mi ngi leeral ne ah, ñi nga xam ne ñoo gën a salaf jubluwuñ ci ne dañoo bëgg a wuuteeg asalaf saalix nañ daan def waaye dañoo toll ci jamono joo xam ne lor moo ko waral ndax ñu bare bari ci ñu mel ni wahabi yi muy mujassima yi ak jahmi yi ci kuréel yi nga xam ne kuréel yu réer lañ dañoo bari boo lekk nit ñi nga xam ne seen aloo soriwuñ mën nañ leen a réeral ñu bëgg a leeral ne texte yi di nurulee ñu dëgg-dëgg du loolu waaye fekkoon nañ ci jamono saxaaba yi la du ko aaji ndax ñoom xam nañ maanaam yooyu texte waaye ginnaaw ñu ko xamul nag dañoo ñëw dana aaji kon ñu leeral xaari nee na am na si ñu ko wax sax اعتذر كثير منهم وقالوا لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقائد وعالم المبطلين في زمنهم لم نخط في تأويل شيء من ذلك من وانت جمالي كحمد مملا جمالي السلف الصالح كحمد بس في سن ما أمون يعقري بريوتون سن جمالي كون دون تأويل درجي يغحني مملا جي تأويل باقو باين وانت جمالي جي أهل البدع غاي غاي خمجو بريد la ñuy wax kon nit ñi mën nañoo nit ñi nga xam ne seen aloo soriwul mën nañoo defee ne la ñuy wax dëgg la qaar yi nettali na fa nettali na fa itam ñenn ci salafu saalex ñoo xam ne nee nañ tawil nañ ku ci mel awsaa yi ak sufyaanu thawri nee na sufyaan tawil na al istiwa bi qasdil amri yaay jublu mbiram kon ak jaafar sadiq ak ñeneen ak ñeneen am na ñu tudd foofu ñi nga xam ne ñoo tawil salaf saalax bu dee ñi nga xam ne dañuy wax ne yàlla ngi ci wet sax bu dee ku mel ne iraq moom day wax ne ku ci mel ni nee na abu xanifata ak malik ak shafii ku ci ak ashari ak baqilaani ñu ci bari wax nañ ne moom ku koy wax sax moom dañ lay génn diine yi ci boppam moo ñuy wax moo ataqidul jihati jihati kaafirun kama sarraxa bihi al iraqi wa demee ci man xaatibu faatix bu xaar yi wax na ko nga xam ne kon waxi iraq yi bu fekkee wér na ni kon noonu lañ ko waxee la muy tekki mooy ñoom waxaabi yi waxuma sax di leen boole ci ahlu sunna waaye seenu njullit la ñuy xool ah, kon mbir yi noonu la demee lëntal la waa ji def waaye la mu wax tegu ko ci ay firnde am na nag la neen lu mu wax loo xam ne danañ ci ñëw dañ doon bañ sax son bi gudd waaye xam naa ne faaw mu gudd muy ginnaaw nangu génne yàlla am na jëmm te jëmmam bukkut ak jëmm ji ci des lu tee ngeen nangu ne am na loxo ab loxoom bukkut ak loxo yi ñi ci des loolu nag bala ñu ko tontu xam naa ñu ngi ñëw ci tontu ko léegi waaye dañu leeral ne sifaatullahi dafa am ñaari mbir daf cee am yoo xam ne am na borom xam yu ko boole ci sifaat yi waaye ne dañuy taxawu maanaam xam duñu wax ne maanaam lii la comme loxo bi yàlla ndax ron na ak sunna waaye ahlu sunna moom comme ni ma ko rombe léegi euh, duñ saxalal yàlla ay cër. kon xam nañ ne loxo bi moom la la waaye doonul loxo bu mel boo xam ne ab cër la li nga xam ne maanaam mooy aljaarixa wala waaye gën ngir bañ a wax ne maanaam lii la di juum moo tax ñu bari ci ñoom dañuy def tafooyut maanaa xam ne daal dëgg la waaye dañ ci jublu dëgg-dëgg mu xamuñu ko am na weneen yoon waxante mi dañ koy tawil seet ne loxo kat arab dana ko jëfandikoo te jublu ci kàttan kon nañ jàpp ne kàttan lañ ci jublu am na ci sifaat yoo xam ne nag moom bukkut ci mutashabihaat yi ndax benn maanaa dong la mën a am lu mel samoox ak basaroog yu mel noonu gaa ñi nag bu leen ahlu sunna keppee ci ay lay ba nga xam ne mënatuñoo dem dañuy tëb daal ne ginnaaw saxalal ngeen yàlla jëmm te xam ngeen ne jëmmam bokkut ak jëmmi ñi ci des lu tee ngeen saxalal ko ab loxo boo xam ne du bokk ak loxo yi ñi ci des waaye tontu li lu gàtt gàtt la dañ leen di wax ne ne yéen da ngeen a ñaari mbir yoo xam ne bokkut ndax bu delloo ci luxa xam nga noon sax asaxira yi noonu ahlu sunna noonu sifaatullaahi dañuy wax ne maa dalla alayhi dalil loo xam ne am nga tegtal bi wane ne noona la waaye waxuñu sax sax ne luxa mooy sunu delluwaay ci mbirum yàlla waaye buñ delloon ci luxa rek gaa ñi daanu ndax ci seen lay lay yi nga xam defe nañ ne dara la te du dara du sax moo ko sos téere sëriñam yi moom moo ko fees xeetu lay wi waaye dañ ko dajji léegi sànni ci seen kanam tontu lu yomb yomb la mooy dañoo boole yu bokkut bu dee jëmm te bokkut ak aw yaram bu dee azaatu ci arab te loolu la ñuy faral tekkee jëmm ci wolof ci wàllu yàlla bu dee ci arab mën naa nekk loo xam ne jëmm la maanaam loo xam ne daa amu yaram waaye mën na koo bañ doon tamit buñ saxalee yàlla ne am na jëmm tekkiwul ne aw yaram la am ndax azaatu yi nga xam ne moom ngeen di firee jëmm ci wolof bu dee ci arab mënees na ko wax loo xam ne jëmm la waaye mënees na loo xam ne itam du jëmm kon mën nañ ne nangam am na zaat te du am ay cër bu dee ci luxa mën naa ne bu dee ci sara sharia it mën naa ne moo tax boo demee ci at taarifaat li sharif داي واخنا والفرق بين الذات والشخص أن الذات أعم من الشخص لأن الذات تطلق على الجسم وغيره كون الذات بيغا خاني موم لا نيتي كي جيم بودي شي لاكو عرب ما نيس نكو واخ لو خاني جيم لا واي ما نيس كو واخ لو خاني دو جيم ا آه، بودي شي لغه يتم حقيقه من داي تيكي حقيقه شيء دغ دغ مبير بوديخون لسان العرب ولا معجم الوسيط ولا تهذيب اللغة آه، ميم صح أزهري نك لي نكو جيلي كو سي إبن الأعرابي يوي ييب دا غاي غيس نكون الذات من نا نك لو خاني دو جيم بودي اصطلاحا تامت سي اصطلاح المتكلمين لولي تام ميم مانامي لا بو ديمي سي نووي سي تهذيب ميغنا فمرادهم بالذات الحقيقة وهذا اصطلاح المتكلمين ولا وهذا اصطلاح للمتكلمين آه، دمنا من قاله الفقهاء والمتكلمون شيء في تكسبي كن ذات الشيء حقيقته لول نك تيكي وند لولا دا فرس ما دا ورا دون جëm kon yalla am na جم xam nañ جم jëm yalla bu ko te jëm ñi waaye nag jëmm yàlla doonul loo xam ne boo wanee ala xaqiqatiha wala zaatun xaqiqiya day wane ne loola weram la bu dee loxo ki tànk ak yooyu nag demewul noonu yooye moom bu dee ci luxa bi ngeen ne zaahirul luxa la loola wax ne loxo dëgg dëgg la walla ab tànk dëgg dëgg la te loola du yaram daa mënta ne kon da ngeen a yemale ñaar yoo xam ne dañoo bokkut kon loolu Euh, daanu ngeen foofu euh, loxo bari na ay maanaam ci luxa ibnu xajar al asqalaani boo demee ci indi na ca lu man ñaar fukki maanaam ak juróom yoo xam ne bu ci ne loxo la bu ci ne arab dana ko wooye yëddu waaye yéen bi ngeen ne mooy xaqiqatul yëdi loxo ala xaqiqatiha loolu lañ bëgg ngeen wax ñu ban ngeen ci tànn ci maanaam yooyee mu yor ndax ab la wala ndax leneen la liñ leen di laaj maanaam maanaam yëdu bi ngeen saxal moom lañ leen di laaj kon bu ngeen tëbee ne bu ngeen saxalal yàlla jëmoon ko saxalal loxo bu bukk rek moom li ñu leen di wax mooy yéen da ngeen ne loxo ala zahir luxa wala ala xaqiqata ñun nag biñ ci xam moom mooy ab cër ndax yeneen maan yëpp majaas la te yéen du ngeen saxal majaas kon boo nee loxo dëgg-dëgg jëmm ji am na jëmmi dëgg yàlla buñ ne yàlla am na jëmm dëgg-dëgg-dëgg kon war ngeen mën saxal ne am na loxo dëgg dëgg te loxo dëgg-dëgg moom ab cër la kon yaa ngi xiyaas loo xam ne bokkut ak lee loxo dëgg-dëgg doonte yéen ne ngeen du forcément ab cër la war a doon loolu moom tanaqut bu ngeen def rek la weesuwul leneen wala boog ngeen wax ñu loxo bi ngeen saxal man nag ay at maa ngi koy laaj waaye kenn tontuuma ci ginnaaw du ab cër lu mu doon maa ngi koy laaj ay ati at waaye daa mel dañuy war wër loo daa mel taqiya bi bi ñuy wax cheikh yi daa mel ni ñoo leen ko dàq mooy fas loo xam ne doo ko ñemee wax ba léegi itam noonu la ñuy waxee ne euh, ginnaaw yéen xamu leen lenn loo xam ne mi ngi dund te amutu yaram man ngeen war ngeen ma saxal ab loxo boo xam ne du ab cër tamit ndax yi dund yépp saxal ngeen yàlla day dund te mbooleem liy dund aw yaram la am xamu leen leen luy dund yurtu yaram kon lu tax mun leen saxal loxo boo xam ne du ab cër doonte sunu waay ji gis gisu sax gisuma sax muy dàqal yàlla ay cër moom foofu itam lañ leen rek lañ leen di wax mooy xiyaas ma alfaariq da ngeen boole yu bokkut xam nga alxayaatu moom ci luxa menn maanaa muy dund bu dee fii ñu koy waxe bokk mooy safaanum de bu dee yenu nag daa am maanaa yu baree bari te yéen waxu leen man ngeen ci saxal da ngeen ne loxo dëgg dëgg ngeen saxal te mun leen ñu wax bumu ci yi nga xam ne nee ngeen xam ngeen maanaam yi te war na koo mën a wax man sifaat ne saxalal naa ko yàlla boo ma ko laajee wax la boo ma doon asama ma maanaam ma ne la boo ma doon albasar ma ne la idraakul mubsarat yeneen sifaat yëpp boo ma ci laaj ma ne la maanaam lii la waaye yéen bii da ngeen loxo dëgg ngeen ko saxal te buñ leen ndax ab cër cër la ngeen di wër-wërlu kon xiyaas ngeen mbir yu bokkut loxo dafa am maanaa yu bari te yéen waxu leen ban maana ngeen ko ci saxalale yàlla ndax moom alyadu kepp moom doyut faaw nga wax ñu bi ay maanan ala ala haadihi alyadu allati ndax maanaa yi mën a yor daa bari ab cër ci la bokk am na yeneen tamit te yéen nee ngeen xam ngeen maanaa mi waaye ay at maa ngi koy laaj kenn tontu ci kon boo ko xiyaasee ci mbirum dund ne luy dund lu ne aw yaram la te loolu sax dina ci ñëwaat qiyaas nga lu قياس قلوبكن leemeen maana le war yor ay maanaa yu bari wax gi ñu wax ne luy dund lu loo xam ne day dund lu ne itam foo ko gis agaram la loolu du wax ju wér boo demee ci tahzibu luga nee na qaala abu daawud qaala nadr wa qaala nadr ruuxaaniyuuna arwaaxun laysat laha ajsaam nee na ruuxaaniyuuna ay ruu la xam ne amuñu ay yaram ولا يقال لشيء من الخلق روحاني إلا للأرواح التي لا أجساد لها مثل الملائكة والجن وما أشبهها نانا نعم. درج من في ديسكو روحاني لور لو خامني اي رو لا نيو خاني اي يارم كوم ملائكه اك جيني اك اما ذوات الاجساد فلا يقال لهم روحانيون قلت وهذا القول في الروحانيين هو الصحيح المعتمد كيس نكون malaaka yi xeeti jinne yeeg yooyu ñu ci bari mu ngi leen di wax ne amuñu ay yaram te ah, lu am lañ kon waxuñu ne luy dund lu ne rek wax wax ne luy dund lu ne daa war a amu loolu ki ko wax sax daa war a indi ab dalil kon du wax ju tege fenn ginnaaw am na lu mën a dund te yur fi yaram ah, kon bu leen waxati ne ginnaaw luy dund lu ne dafa war a am yaram ndax loola luxa sëxalu ko sariya sëxalu ko kon dara mën nay dund te te amutu yaram comme ni ko kilifa gi rombe léegi bokk na ci subahaat yi ñuy wax tamit ngir bëgg a daw ngir bëgg a défendre seen biddaa boobu wax ne sifaat yi ñooyam siwaar yi nga xam ne moom lañu faral di tudd ci téere yi ñu ne benn lañ lu mel ni aliyadoog ak saaqoog yu mel noonu ñu ne ñoo xudratoog iraada ak sama ñoo bokk ci wet yëpp loolu wax naa ko léegi sax ci ginnaaw duñ benn ndax sama ak basar ak baqaa yooyu moom boo ma laajee ma ne la maanaam la tayit laa taxtamilu dee nag yeddu ak ña koy saxal yooya baat boo ci jël rek yurun menn maanaa ak istiwa istiwa am na fukki maana ak juróom yu bokkut yoo xam ne ki koy saxal danaan mii laaj ci saxal bu dee yadu am na ñaar fukki maana ak juróom bu dee wacc ko tamit am na maana yu bari waaye seen wax jooju sax dafa wérut ndax dañuy bëgg a wax ni bu ngeen ne loxo ab cër dong la a doon ñu ne leen dégg kat bët dong koy nopp dong nopp koy def bët tamit mooy gis kon yéen itam ginnaaw saxalal ngeen yàlla ab gis ak ku dégg kon yéen itam da ngeen di saxal ay cër ndax nopp ak bët ñoom itam ay cër lañ waaye nag wax la joo xam ne wérut dégg ak am nopp du benn gis tamit ak bët du benn nopp ak jumtukaay la ngir dégg bët tamit ak jumtukaay la ngir gis waxuma la sax yàlla waaye mbindeef sax mën naa gis te du gisee bët alquran nee na maa kadabal fuaadu maa raa kooku foofu xol a fa gis kon gis mbir la jumtukaay ga ñuy gise mbir la du forcément balaa mbir maa mën a am day aaju jumtukaay ga ñëw kon loolu rek daane na seen wax jooju ah, wax it mën naa am ci luut gimiñ ndax yenn mujisaat yi sax da ngay gis ñu ne yonte di waxtaan wax wax na ak loo xam ne jamaat la kon kooku waxewut gimiñ kon maanaam mi mbir la jumtukaay gi ñu koy defee mbir la doomu aadama moo am jumtukaay yu mu koy defee waaye jumtukaay yooyu mbir ma du benn xar baax mën naa am sax mu gisee loo xam ne du jumtukaay googee boo demee ci furuq al furuq lil askari yi danaan al farq bayna al basar wal ay an al ayn aalatul basari wa hiya al xalaq nee li diggante basar ab gis ak bët mooy bët mooy jumtukaayu gis wal basaru ismun li ru'yati li isim la ngir gis gi waa tax dañuy wax na wali hada yuqaalu ixda aynayhi amya wala yuqaalu ixda basarayhi wax na kenn ci ñaari bëtam daa gumba waaye duñu wax ne kenn ci ñaari ab gisam daa gumba ndax duñ benn euh, kon diggante gis ak bët du benn gis daa am maanaam mu leer bët moom jumtukaayu gis loole rekk la bët bu gumba woon tam bu teñu di ko woowee bët waaye nag gis ko mu amatu ca kon loolu muxaalata la boo xam ne dañ koy def ngir jéem a daw li nga xam ne ahlu sunna ilzaam nañ leen ko te mënuñu cee gën bu dee lu mel ne xadam ak yedd ak saaq ay cër lañ ak i xaaj ak i jumtukaay bu fekkee ala xaqaiqiha lugawiya lañ al wadaiya Euh, bu fekkee du loolu wax leen ñu lumu ñun kay ñu du lool rek lañ soxla nee leen nee leen nee ñu lii la li maanaam yi lañ ci jublu noonu ginnaaw nee ngeen xam ngeen ko xam ngeen ko bu ngeen ko xamut tamit ñu ngi leen ci invité ci kërug tafawit ndax kon mu fawir da ngeen benn ngeen mën ñu ko wax wala ngeen bokk ngeen bokk mu fawir da rek <laughs> lu mu si a doon moom baax bu dee lu mel ni zaata yooyu nag moom ak ak gis ak sama kalaam ak yooyu loolu lu mën a am la te te ay cër du am <coughs> ndax bokkuñu lu mën a am la itam te aw yaram du am euh, kon lii lenn la ci euh, yenn lënt yi nga xam ne góor si defoon na ko may leeral nag ne jeexal ne tawil googu muy bañ moom lu ñu dëppoo la boo demee ci ar risaala ila ahli saxar ak ci al iqnaa lil faasi am na ci sifaat yoo xam ne wala al iqnaa lil faasi da nga gis ne lu ñu dëppoo la maanaam ahlu sunna dañoo dëppoo ci tawil ar risala bu abul xasan al ashari boo ci demee da nga gis mu ne ar rida ar rida ak al xodab ahlu sunna dëppoo nañ ci ne seen maanaa du ni ko wahab yi tekkee tey iraadatu xooli naimihim maanaa ci misaal bu dee rada loolu lay tekki bëgg gu leen yàlla jox xaalis xéewal bu dee xadab tamit safaan bi la maji ullahi itam comme ni mu newee ci tamhid bu ibnu abdul bari ak ci al iqnaa jubluwuñ ci ne jëmm yàlla ja mooy tuxu mbirum béréb tam boo demoon ci alfarqu bayn al firaq bu al baghdadi da nga gis ne nee ñi dëppoo nañ ci ne yàlla béréb du ko peeg du ko peeg kon loolu la muy tekki rek mooy tawil moom ahlu sunna dañ caa dëppoo comme ni ko qaadi Iyaad waxee tamit ci charxu muslim li nawawi nusuus yi nga xam ne day wax fi samaa yi wala yu mel noonu dëppoo nañ ci ne ni muy nuru ci kaw ak lam doon bokkut ci gàttal kon mabda'u ta'wil ahlu sunna dañ cee dëppoo salafan wa xalafan bu dee salaf am na ta'wil yu bari yoo xam ne wér na ne salafu saalih doon nañ ko def lu mel ni majiullahi ahmad tawil na ko ci sanad bu wér bo xamne way haqi xaqi wéral na ko mujahid tamit tawil na wajhullahi ibn abbas tawil na saq nadr ibn shamil tawil la qadam même sunanu tirmidhi bo ni me ngay fek at tirmidhi di wax ay tawil yo xamne neena ahlul ilm ci salafu salih ñoko def tey man liste bi bu gudd a gudd la xam naa damay gàttal rek moom jéem koo weddi sax bokk na ci xeeti gàtt xel yi jéem koo weddi wala nga fekk tawil bu leer bu salaf def nga di ko jéem a dégg na neen yii xeeti gàtt xel la ndax doonul lus man ahlus sunna loolu moo mos doon seen mën manhaj bépp baat boo xam ne day wane ak manque ci suñ borom moo xam lu mel ni malal la walla istixyaa walla nisyaan ni ki fàtte wala wéradi mbaa yoqat yu mel noonu duñ ko teg ci seen zaaxir ndax loolu ak wàññi ko la ci suñu borom boo demee ci tamhid bu ibn abdul bari am na yu bari indi yoo xam ne dana la wan wan gu leer ne la nekku ci zaaxir bi nga xam ne moom lañu ul ci kaw yi nga xam ne itam day tegtale ne suñ borom man day nuru ne suñ borom daa nekk ci béréb mbaa mu mbaa mu yori cër yooyu itam lu ahlu sunna noonu lañ cey doxee Euh, loola moom noona lañ koy déggee ndax sax na ne du boromi cër bu koy defee nag noonu moom lañ suñ mag ñi jàngal boo demoon ci mañ moo ba suñ tubaa boo demoon ci page suñ tubaa daa wax ne wama warada muuhiman ka wajhi rabbika wa yadillaahi wastawa ala alarshi wa jaa rabbuka lam yurat minhu waahiru baat yooyu nga xam ne day rot lu mel ni baat yooyu nga xam ne day rot te boo xool mu mel ni mën na laa defee loo ne xëy na suñu borom daa nuróog nit daa nuróog mbindeef lu mel ni xar kanamu bi yàlla wala loxo bi yàlla wala loo xam ne boo ko dee xool day mel ni daa war ca kaw aras muy istawa alal arsh ak yàlla ñëw na yooyu nee na la ñu jublu bokkut ak li muy nuru ci kaw ah, kon boo demee itam noonu ngay fekkee ci mañ waaw muy tawil lu mel ne rahma ne iradatul ihsan te béréb yu bari non ngay gis mu muy waxe la aqidat al ash'ariyya bobu mom lañ suñu mag ni jangal bo démé tiwaan mom ngay jang bo démé touba mom ngay jang fenen fo dem ci senegal tam mom ngay jang bi nga xamé né nak gaay yu bés ci tambali nañu ñew lañ tambalé soppi aqidat al sunna bi nga xamné ci la salaf salih néwon ñu ko jangalé ci mbolém réew yi yalla ñu yalla mussel ci euh gaay yi najdu yi ndax ñoom wax di yalla yàq nañ daal lu bare ba ci réew mi dégg naa ko sax ci benn son mu yéem a wane ne maanaam avant al aqidatul ashariya di ñëw ci maghrib war nañu wax wala dafa newoon mel ni day jéem a junj ne daa am leneen lu fi nekkoon loo xam ne daa bukkut ak moom téere histoire yi waxtaane nañ al aqidatul ashariya kañ la dugg maghrib waaye nag boo delloo ci ibnu xaldun ak ci al iqsa للناصري دا خا من لا فا نيون دون اك وهابيه دون عقيده بو دبو موم تام اوا العقيده الاشعريه دي نيو لا فا نيون ووتو ووتو العقيده الاشعريه ندخ تفويض ابن خلدون ليرال لاكو ليرال بو لير ناج هل استقصاء للناصري تام ليرنا فا ناج خمنا ناج نيوات تي بنين فوق كون نيوم لي ني فاس دا مستني في نون في تي te ak tafwid wuute wu rek al aqidatu ashariya xëy na tawil moo fi ak séegutoon te tawil loongu du aqidatu ashariya ndax al ashari nangu nangu nañ tafwid seen réer gii ñu dugg nag ba tax ñu wuuteeg borom ponkali borom xam jullit ñi ci histoire salafan wa xalafan ñàkk xam ak ñàkkan xam langu arab yu nga xam ne bari na réer goo xam ne dal na waay te ñàkk xam langu arab moo ko mooy leen dal li ci soof nag mooy dañoo xamut ba noppi te def ne xam nañu xam naa may dellu di leeral rek ci jeexal bi ne alaqatu achar yi ba ñut kuy wax wajhullaahi wala yadullaahi wala yooyu ba ñu ko bañ kay mooy ko dégg ni ko waxaabi yi dégg loolu yi lay bañ waaye saxal yëddu mbaa waj moom lu dëppoo ko aqidatu achar yi la mu faw tool achar ñi nga xam ne ñoo ciy def tafwid ñëpp ku ci mel ni Baqilaani ñeneen ak ñeneen ñu ci bari moom la ñuy def Abul Hasan sax ak ku ci mel ni Imaamul Juwayni ñu ci bari ci ci loolu lañ mujj waaye dégg ko déggin yi nga xam ne moom la bi wax ne zaahirul luxa loola dañ koy dégg comme ni muy ci kaw te loola buñ toppoon langue arab képp duñ ko wax waxuma ne nag maam yeneen adil la loolee mooy biddaa bi nga xam ne asalafu saalih mooy leen sonaloon te ñoom Euh, ibnu Karraam ak Muqaatil ak ñeneen waaye ñun ñi doon du salaf saalih tamit moo ñu sonal ci wahabi yi nga xam ne ñoo ñoo doon ñooñee ci suñ jamono. Euh, kon mi yemandi fii ba beneen dañ ñëw ci leneen li waxaat. xam naa ñu tëjee ñu mbir mi rek wax gi mi tudd mbirum nuróole yàlla ak yooyu yàlla nag. ñun du question sax fi noonu ndax ñun suñ ab tegtal mooy alquran ndax ñuy ahlu sunna wax nga ci alquran sunna la ñuy dellu ba suñ borom ne laysa kamithlihi shay'un lañ xam ne nu rëwut ak dara ñoom koy xanaa lañ war a jox la son ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ne dàq nu roo dàq ne yàlla nu rëwut ak mbindeef loolu wuree su koo def dàq ne yàlla nu rëwut ak mbindeef mutlaqan seen téere yi bind nañ ci ne loolu mënta ne nga xam ne moom kon ñoom dañuy wax ne suñu borom nuróo ak mbindeef kon boobu question moom seenu question waaye noonu du noonu ndax ñun moom lañu ñu suñ tubaa jàngal ak ña ko jiitu woon mooy fa kullu ma yaxtur bil baali abad fa bi xilaafi zaaka rabbuna al ahad te loolu it moo dëppoog aaya bi moo tax buñ bëggee daw dañuy bëgga wax ne leen yéen kat da ngeen wax ne yàlla dégg na mbindeef day dégg te te déggu yàlla nu róowu nangu leen ne mën naa am loxo bu nu róowu rek loxom mbindeef loolu defe naa liñ ci leeral ci ginaaw euh, leer na euh, xam nga yàlla laa ngi dégg ak mbindeef day dégg taxul yàlla nu róog mbindeef waaye nag boo ko saxalee loo xam ne nag ay cër la dem ba ne sax melokaanu yàlla mook woo doomu aadama yam comme niñ ko wax ci seen téere yi as suura kooka nag ku ko def ba noppi taxaw naa nuróole wu ma yàlla ak mbindeef defe naa ne dagg sa bopp war a def te loolu lépp ak xamadi ak euh, gàtt ëlloo rek la ko yóbbu ndax yooyu teg sax même langue arabe yi boo ko ci tegoon du tegtale la ngay wax waxuma la nag ñu am ci ay dalil ay ijmaat ak yeneen ak yeneen te loolu itam di ay lay yu wér yoo xam ne mën na sa caa dellu ci wàllu sariya ak ci wàllu pas-pas kon boole yu bokkut yàgg naa réeral nit boo seetloo li ma doon leeral ci ginnaaw bi tam ba nga xam ne dañoo fekk mbir yoo xam ne du ñu benn